te dañ ko top jusqu'o dernier moment ba ñu xam luñ ci am ñu jël man daal la xam que inshallah dañ salam alaykum mbokki euh dafa am lo xam dafa xew ci semaine passée wo am nit ko dafa dé kanamu kër yu sundu wayé gis nañu ay média yu précipité wu génné information ne waji dafa xaru sénégalais yépp ñu ci bëri luñu jot ci information moy dafa am ku xaru kanamu kër yu sundu légui wa kër xale bu góor bi dañoo def autopsie autopsie bi wone ni kooku xaruwul dañ ko dóor ba pare jam ko paaka waaye ce qui vraiment étonnant mooy gisuñu fenn foo xamante ni ay média ñu ngi indi leeral yooyu ne waa ji xaruwul dañ ko rey Seneweb gisuñu ko mu wax ci Senego gisuñu leen ñu defal ñu ci ay publication comme niñ koy defee sénégalais yoo xamante ni bu ñuy xeex ma Macky Sall bu ñu amee problème ni ñu koy fësalee lii nanguñu koo fësal te ku ci mel ni Ndoye Bane mu ngi dal ci famille waa ji di yàq seen der naan waa ji mosul liggéeyal Youssou Ndour donc ñu ngi jël ay nit ñoo xamante ni ñu ngi leen di communiquer loo pour setal yu Ndour te affaire bii nii autopsie génnee dara setalu ko ci dara dara dara setalu ci Youssou Youssou Ndour crime lañu def kanamu këram nan moo tax ñu ci tudd suicide yaayam nee na waa ji suicidé wul te ñëpp ñëpp a ngi xam ne waa ji suicidé wul donc waa leeral ak yeneen média yoo xamante ni dañuy génn di fen di sosal ay activiste di sosal ay opposant Ousmane Sonko euh, wala ñeneen ak ñeneen ak TFM mi nga xamante ni ñu ngi ma doon sosal man mi waaye yéen investigation yi ngeen di def dem leen def ko ñen xol ndax sen patron akay garde corps am ray doomu adama ba pare diko neub ou pas état Sénégal justice bi lan la xaar pour def sen liguey japp Youssou Ndour pour tirer au clair cette affaire là. je crois que affaire bi ni nit yi wax ci mo gëna important fop que ñu nek di wax ci ay affaire yo xamanteni fane fan ñu ngi ci sonal doomu adama bakkanu doomu adama lañu ñu jël kanamu ko Youssou Ndour affaire bobu nak moo gën a important détail yépp yi ñu leen di dugal te kenn nangu ci wax ce n'est pas normal